mais président Boubacar dafa proposer nii bu ñu réglé loolu ni durée séjour présidentielle quel que soit le candidat warul dépasse dix ans dans sa vie. Mm-hmm. loolu définitivement loolu dañuy tëj constitution bi kenn dootu nekkati di ñu wax ay problème mandat. Mm-hmm. loolu lépp moo indi coow li actuellement mooy indi su ko defee man je pense que doyen li nga wax nii opposition dafa nekk en retard je pense que c'est ça c'est la volonté de de l'État ñoom ñoo ñuy entraîner sur des inutile des débats yoo xam ni. ngeen dañuy tardé non attention. parce que non attention parce que ñun par exemple ñun on défend des principes et on est toujours constant boo xoolee ñun dañu wax bind. construire le Sénégal du futur wax naka lañ mën a développer le Sénégal. livre bi xam naa fi lay jaay. voilà livre boobu fi lay jaay livre bi expliquer une chose très importante yaa ngi def sa promotion sincèrement. non dama bëgg expliquer une chose très importante ñu xam ni ñu raadu opposition. koo xam ne dafa mer ñëw opposé wu ak koo xam ne dafa ñëw def sacrifice pour son pays tey président Boubacar. bu Boubacar mer wu non attendez musu mer. Hmm. moom au contraire dafa gis ni. waaw moo doon teg livre moo dafa nekkoon inspecteur général <laughs> nga teg mu livre bi un peu un peu nga comprendre. waaw pour war ne ce qui différencie Boubacar des autres dafa occupé woon nest pas position yu yu yu yu ci état bi. Hmm. volontairement mu jël décision bàyyi. dem choisir opposition créer parti politique bind son projet de société son expérience ak jaar-jaaram mu gis ni mbir yi ni ko gars yi di gérer du du fooful mooy yoon bu baax bi. mu am ci xalaat. xam nga li gënoon sax mooy dem bokk gouvernement. Hmm. tey bu d'accord mu ngi ci biir gouvernement mais bu boobaa. lii xalaatam ak li mu fas yéene liggéeyal ngir Sénégal di ko liggéey ci yeneen réew. du ko mën a def.